très facile l'islam dafa yomb yàlla na yàlla déggloo ñu diine nu ñuy tiime tiim aussi xeer baa ngi nii wala boog ci suuf ngay tiim da nga naan bismillah bu dee xeer bi nga gis nga nga frotte xeer bi nii ne nii sa kanam gis nga sa kanam bu soo paree sa kanam nga enchaîner say loxo ba fii gis nga nga jël gauche bi tamit ci ginnaaw ci kanam ba fii gis nga pare nga ci nii lañuy ñuy sangoo nii lañuy tiime tiimee macha allah boo paree mën nga julli mën nga jàng alxuraan mën nga laal alxuraan naam am na ñoo xam dañuy tiim di andi ba fii ñii di laal fii du lii yëpp bokkul ci lu yonent bi jàngale sallallahu alayhi kon daal nii la ñuy sangoo set nii la ñuy tiimee yàlla yàlla déglu ñu diine def ñu dëgg-dëgg jullit daal di ñuy musal ci lépp loo xamante ni daf ñuy yóbbee ci merum yàlla yóbbu ñu safara yàlla na yàlla boole ci ay xaritam dugal ñu ñëpp aljanna ci yërmandeem amin ya rab